leer na ñëpp amu ci kenn koo xam ne mos ngaa falu te lu premier signal dañ lay france jox la légion d'honneur takkal la ko wane ñaag tubaab bi ñoo ànd ak yow ñu ngi lay puus da nga yegg ca ilimaan ja xam nga da ngay mi ngi mel ni rek tey jii ji nga même jumaa yi jàkka yi mais ay dëkk euh, dëkki diine yi ñoom ñooy joxe ilimaan ñu ne diw sëñ bi def du ne ñu ñooy da ne diw moo ñu doy ilimaan la ilimaan ji dafay ñëw jógee fee rek ñu ne moom la sëñ bi yebal rek ñu ne ay ca bismillah mu daal di julli nii mu amee ci jàkka yi noonu la amee ci politique bi dañ leen di désigner fa ñuy ilimaani Sénégal ci politique du mosuñ ko désigner fii France dañ koy désigner waaw waaw ba ci Ablaye du mucc ci ba bu baax ba ci Ablaye Wade ba ci Ablaye Wade yan firnde nga ci am ci loolu mm, loo ci mën a ah, man maa sos PDS bi waaw waaw ah, kon kay jeex na xanaa du ma ci xanaa kenn man xam man maa mën a xam ci PDS lu kenn xamul waaye kenn xamul ci PDS loo xam ne xaw xawma ko loolu dëgg la. donc légion d'honneur bu la jël ca France. waaw c'est moom fi nga xam ne bañ bañ jàppee ne bu fi ñëwee am na yoo xam ne du ko laal mais Abdoulaye Wade dañ ko fi waroon a bàyyi waroon na def vingt ans comme Abdou Diouf ak Senghor ñu ñëw vingt ans lañ doon def Sénégal pays de vingt ans la woon. mais bi nga xamee ne dafa jël Dubai poor joxe ko duggal chinois yi duggal indien yi duggal iranien yi ñu daal di nañ ko bale loolu la. Mhm. ak it bëggoon naa génn ci CFA. waaw man mii mi ngi may dégg mosoon na maa yebal pour ma dem seeti présidentu Libéria boobu moo doon sëllif pour ñu mën a ànd ak yeneen pays yu d'accordoon pour ñu créer beneen monnaie génn ci CFA bi waaw loola nag CFA comme su euh, wax rek doon nañ la nga daanu depuis Olympio Kadhafi euh, Sankara euh, Modibo Keïta ñu dul ñooñu donc loolu mooy les réalités nga xam ne nii nanguñ koo dégg. d'accord léegi donc réalité urne yi. ji nga tey tey xam nga réalité urne yi urne yi. pour yow nga dugg. ci non réalité urne waaw pour nga dugg ci intellectuel. ci ci ci nga dugg ci actualité. Mhm. Sénégal bi démb attaqué nañ ko ci frontière yi terroriste attaqué nañ fa. Mhm. waaw euh, gars yi riposté nañ mais seen base seen euh, seen cubukaay français yoo ko yore. ca penku Mali mais ñu ngi euh, attaqué penku Sénégal xam nga loolu mooy li mujj xew. Mm-hmm. ok xaw ma nag yow da nga amul filu actualité la. xaw ma da nga koo négligé. xam naa ni c'est important nga nga sërxal ci loolu mais dama bëgg ñu ñëw ci réalité urbaine.